léegi arrestation bi nan la demee bi nga duggee kër xaar arrestation bi nan la demee. waaw bi ma duggee ci biir kër gi dafa am benn euh, grand boo xamante ne suñu grand la moom mi ngi dëkk ci biir koñ bi moom c'était un flic ex flic parce que dem na retraite sama ginnaaw je roi ñu koy wax mbay jong mhm. grand boobu après moom moo ñëw indiwaale oto ñu dugal ma ci biir oto bi yóbbu ma police. Mhm. donc bi ñu ma yóbboo police ñu dugal ma ci violon bi le lendemain inspecteur bi ñëw ki yor suma dossier suñu waa kër même suma tànt bi à ce moment dafa ñëw ci police bi bi mu ñëwee dañu génne main courante bi wan la ñu génne main courante bi leeral ko vol de bétail mais amuma jot amuma won possibilité pour mën taxaw expliquer que ni li ni la démé aussi may ñuma ma sens boobu noonu raison pour laquelle lolu moy raison bi nga xamante ni moo tax nangu en prison lolu mo do nek sama source de motivation pour may daw parce que liñ je suis en prison fait. je l'ai pas fait ne pas man ci est-ce que ne ce mu grave euh, souvent de une citer avec Ino et Alex. non non non ça n'a rien à voir parce que à ce moment-là je à ce moment-là donc ça n'a rien à voir. problème bi bi je pas dégg ma la xamuma musuma suma mais c'est-à-dire dafa fekk ni loolu mooy li ma wax rek destin la boo xamante ni ko tracé war je le prends comme ça et je l'accepte comme ça man non laa ko gisee noonu laa ko et que ko quoi destin la mënuma ko woon a quoi parce que bu ma accepté wul dem yombal xiyaam te ñuy dem gënuma leen yàlla nag moo ma dimbali mu dëgër ci moment boobu noonu ba li sama mbokk yi doon dina def nañ le tout pour ma bañ a dem prison mais yàlla empêché ko donc léegi yàlla suñu borom dafa def ko ni biñ ma biñ bi bi biñ ma bi bi ma biñ ma yóbbu police ci affaire boobu noonu inspecteur bi defeere ma bi ma defeeree alkaati bobu nga xamanteni mom momu jël ci won ci kër mama xaar suñu kër sama kër mam xaar moom moo nekkoon chef d'escorte bi nga xamanteni mo moo escorté woon oto bi pour ñu war ma yóbbu en prison mais ci biir auto bi alkaati mi ngi dëgg ci koñ bi si vous voulez après mun naa leen jox adresse am sorewul fii ngeen dem même interviewé ko mhm. je le prends comme un témoin -hmm. je le dis que ni yow xam nga ni sàccu ma mu ne ma mais dinañ la bàyyi grâce mi ngi ñëw dinañ la gracier à ce moment là deux ans dafa mel ni éternité ci man parce que deux ans maa ngi koy ima ñu ngi koy imaginer moment boobu noonu nga xool ci tabaski bii nii ba tabaski dellu si waat mais loolu doonu mu doon loo xamante ne da ngay jàpp ni lii du jeex mhm. par rapport ak tey ni nga koy xoolee xam ni deux ans xam nga c'était comme du jour et du lendemain mhm. noonu la ñu doon nattee deux ans noonu la ñu doon calculer deux ans foofu la ñu ko doon xoolee en même temps da ngay ñëw ci président ñu lay ñaari jamono nga xam ñaari jamono comme at bu nekk jamono la ci nit parce que at bu nekk am na si ñoo xamante ne seen jamono lay doon mu nekk mu nekk mu nekk loo xamante ni xam nga lu rëy ko quoi doonul woon lu tuuti quoi. mais quel que soit alpha ak limu don doon rëy rëy rëy rëy lépp je sais que ni man en personne defuma lo xamanteni ni warna war na tax ñu tëj ma ci prison. Mhm. je le sais donc lolu mo taxone man je n'accepterai pas accepté wu ma won pour tok ci prison bi. donc peine vingt quatre ans bi erreur la won mais effectivement erreur la mais erreur la bo xamanteni ni mang koy santé yalla suñu borom. li tax maa ngi koy sante yàlla suñu borom parce que nekk naa ak sumay moroom yoo xamante ni gënuma leen ndey gënuma leen bàyyi gënuma leen juddu te gënuma leen fay yàlla yit mm-hmm. ñoo xamante ni yàlla suñu borom daf leen a jël man bu ma fi yàlla suñu borom bàyyee ma toog mm-hmm. ba di ko nettaliwaat dama koy sant mm-hmm. dama koy sant damay wax alhamdulilah ala kulli haal nan nga xamante Ino ak Alex parce que dafa am lu bëri luñ si wax. Mhm. mais man dama gis contraire bi moo fi am tey. Mhm. bon gis nañ ne nit ñi day sénégalais yi dañuy kenn ku nekk da ngay commenter quoi mais mbir bi nga dëgg ko si ndey mbill gi si boppam. mooy li ma wax rek man li ma yóbbu prison erreur la. Mhm. erreur la boo xamante ni xam nga erreur bi mi ngi tàmbalee ci man. police alkaati bi nga xamante ne moom ma ci tàppel defeere ma parce que moi li ma doon expliquer déjà dajawaat nañ en prison mu ñëw ba ci man jox ma loxo ne ma pap baal ma c'est parce que après trois mois bi ma defeeree ba nekk ci prison bi def ci prison bi ñetti weer il a retrouvé son vrai de coupable mhm. coupable de dëggantaan après la koy doog a jàpp bi muy jàpp coupable bi dafa mere papa waa ji ba ko ak papam bolé len ñom ñaan len en ñu mais le coup est déjà parti le mal est déjà fait mënatul revenir ci ay décision parce que nekkatul ne mom moy dogal ci man donc ma accepté ko nak santé ko yalla bu mais ino man duma ko wax Ino ndaxte tuddul Ino Alioune Abi Talib Samb la tudd Alioune Abi Talib Samb yàlla na ko yàlla yërëm ci fi mu tëdd jégal ko ay njuumteem woyofalal suuf ci kaw moom ak ñamu fa fekk ñépp ak mboolem jullit bu ko fa fekk Alioune Abi Talib Samb nit la nit la comme man nit la comme yow nit ku am ndey la am baay am ay mag am ay sœur dëkk ci dëkk bi sama xamante ak moom yàlla moo ko dogal parce que xamante naa ak ñeneen ñoo xamante ne bokkuñu ak moom te loolu lépp maa ngi xamante ak ñoom ci biir prison bi mais il suffit que ngeen demandé ma lutax man naka la def ba xamanté ak mom. c'est parce que ñoo bokk ben nek man ak mom ñoo bokk ben nek chambre 10 en 98 ñoo bokk ben nek man ak mom bokk ben bol bo xamanté ne moy bolu añam mom biñ ko doon indil ñuy bokk diko partager man ak mom je le connais comme tout le monde mënuma taxaw di wax ci moom wax bu ñaaw su ma ko defee tey gor je ne peux pas le faire mënumaa def loolu parce que ne serait-ce que bu ben benn bu baax la mus na ma ko defal bu dee benn bu baax la mus na ma ko defal parce que man ba may prison c'est pas facile c'est pas facile pas du tout à l'époque à ce moment-là kaso yi ni mu mel ni moment c'est diamétralement opposé bokkul du benn prison dafa humanisme l'administration pénitentiaire dañ ko ils ont préféré dialogue ci lépp ak Ali le directeur de camp ak Lirab maa ngi leen di gërëm ci loolu maa leen di gërëm ci loolu di leen sant ci loolu di leen wax ne leen lu ñu gën a mën a yokk humaniser bi nañ ko def parce que lépp lu ñuy def lu nekk rek dañ ciy jiital dialogue waxtaanee ko te donc waxtaan moom moo lay permettre nga mën a trouver des solutions des solutions yoo xamante ni nii du la gaañ mais du gaañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy détenus yi yàlla suñu borom dafa def. ino moment boobu noonu nga xamante ni ñoo ngi xam ñoo ñoo ngi bokkoon néeg man ak moom am prison ino nekkoon nit boo xamante ni moom ma magoon mun naa ne grand mais grand la boo xamante ni daf ma doon protéger moom ci lu bari parce que bi may ñëw foofu noonu ci prison bi néeg boobu ma nekkoon chambre 10 man maa fa gënoon tuuti. ma fa gënon tuuti ci jëm ma fa gënon tuuti ci ma fa gënon tuuti ci ci ci az ma fa gënon tuuti ci jëm ma fa gënon tuuti aussi ci az ñi mo mak rek fa nekkon <coughs> té moment bobu difficile woon na ben part dina ben façon difficile bo xamanteni ni sambour 10 tudul won sambour 10 sambour 10 ak sambour 9 sambour 10 dañ ko tuddee woon Rwanda sambour 9 ñu tuddee woon ko brondi à l'époque parce que tellement que nous difficile et que pourtant ben nek bu ci nek moment bobu nonu mi ngi don 140 maximum 100 100 145 personnes mais imaginez-vous nek yoyu moment bobu nonu ak ni muy difficile ni muy mité yokku ñu nek yi ba paré à l'heure actuelle ni nek yi di def 300 personnes nek yoyu nonu té ñaari nek ben nek bi lañ doon préférer lañ doon def pour muy génn cour matinal benen nek bi génn soir parce que ñom ñaar ñe buñu génné ndowé cour duñu xacc ci couloir bi vous imaginez à l'époque 140 145 maintenant tay nek yi yoy non di def 200 ou 300 personnes ñoñu kon naka lañu wara nekké quoi ñom ci bir nek yoy nonou xam naa ñoo ngi bugg a yàgg yàgg ak yow mhm. dañuy gàttal mhm. euh, donc yow fi mu toll ni ban appel ngay lancé état du Sénégal euh, nee nga say mbokk nga fa bàyyi mhm. euh, pour ñu mën leen jàppale ñu mën am tuuti confort wa donc man appel bi may lancé mooy comme quoi que ni à l'heure actuelle nii nii nii nii ma fay di leen fa kaso bi bëri na ay xale trop au tout dernier moment Bokande la koy adressé mom la koy wax pour mu baye ci xel quoi parce que je sais que ni buma ko ko il va trouver des solutions vite fait le plus rapidement possible parce que kasso bi bëri na ay xalé trop c'est vrai duñu mineur duñu mineur quoi parce que amuñu 17 ans amuñu 16 ans peut-être 20 ans 21 ans 22 ans mais ça ne veut pas dire qu'ils ont mûr en 100 ay majeur lañ ci mais ay mineur lañ ci xel mi xale yooyu noonu nga xamante ni ñoo ngi bëri camp pénal nekk ay xale yu ndaw yu demagul fenn man damay toog gise benn xale damay jaaxle dama lay wax kaay ba nga ñëw may la yow lan lañ la tëj nga ne ma temps lañ ma tëj may la ah bon nga ma waaw may la ok demal mais lii tax ma lay woo du moom mooy tax ma lay woo mais dama koy woo parce que man bi may tol noonu ne am âge boobu noonu leen dal noonu ci la ma dalee. donc je sais ce que je dis kaso bi instant biñ toll na ay boy trop ay à partir de 25 ans jëm 18 ans nga fay gis nañ fa trop trop. trop a c'est pas c'est pas. lay ans la ans la ci même jusqu'à 10 ans mais quel que soit alpha Vous ndaw yoy nga xamanteni ni ñom vingt ans. tollooguñu trente ans amaguñu trente ans da trente ans d'année mais pour quelle raison ba ñooñu mënuñu leen a jël dajale leen ñoom ñëpp ma ñu yóbbu leen forme mais ñu yóbbu leen Sébikotane ñu dem ci tool yi foofu bàyyi ji boo yooyu ay xale lañ tewuñu kenn booy bu si jéem a te nga jël ko teg ko ci table si micro jël yet dóor ko ci taat bi boo mu tàng jër nga bàyyi ko mu dem soo ko bàyyi mu ñibbi dootul ñëwaat je te le mais c'est-à-dire bu ñu jàpp ni juruñu leen

maa lay ñaan loolu nga bàyyi ci xel quoi nga jëm ci trouver une solution parce que xalé yoy nonu fofu du sen place fofu du sen place quoi peut-être que mën nga ci am yeneen solution yu bokul ak ñom ñu tok fofu nonu rek. samay projet moy que ni bari na trop trop trop trop trop trop trop parce que li nekk sama kanam bari na mooy sànq li ma doon wax il y a des choses yo xamanteni xam nga il se tourne dans mon tête mais c'est-à-dire doon na loo xamante ni mënuma ko defal sama bopp man te suma mbokk yi ma bàyyi fii nii aussi tam doonul loo xamante ne ñoom mën nañ ma koo defal et il faut il faut ma am ci lu ma jàpp je suis obligé pour que ma am ci lu ma jàpp donc nag loolu nag mooy li nga xamante nii man maa ngi koy xaar. bëgg nga la jàpp. waaw loolu mooy li nga xamante ne maa ngi koy séentu parce que tijji nañ buntu yi. ne ma mën nga dem libre nga téye libre. Mais en réalité, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Parce que dara gënul metti nga nekk ci kër doon ponkalum jëm. ben xorom bu 25 francs fa jënd Lolu bo gor ay duma lay doon ci yow situation bobu à ce moment ni may ak malgré que ay jambar lañ malgré que ay mais aussi dañu yor ay sen sen dañu yor seen ay njaboot te dëkk bi dafa metti kenn ku nekk sa bopp doy na la do doy doy na la problème beneen nit nag boo xamante ni xam nga musoo lekk ci moom un après bëgg xëy suba jóge fële ne la ñëw pour wéeru ci sa kaw encore ce sera loolu tamit day gën a metti mooy bu ñu la ko waxee ak bu ñu la ko waxul da nga koy xamal sa bopp malgré ko doonul loo xamante ne lu ñu lay wax la parce que lu ñu am bokk kook yow ndax yéene nañ la ko mais bu dee yow nit nga. du du du question que ni ay dóor kese ngay santir ci sa yaram mais y a des actes yoo xamante ni moo raw ay duma surtout maa ci magum jëmm ko waaw donc man man man j'attends j'attends que xam nga pour que pour que pour que pour que pour que aussi xam nga ñu soutenir ma ñu soutenir ma mooy que ni j'ai des projet man am naa trois professions yoo xamante ne bokkuñu. trois professions yoo xamante ne benn bokkul ak moroom. ban ak ban la benn bokkut ak moroomam ban la. mën naa ko. maçonnerie mën naa ko. naviguer mën naa ko. donc j'ai trois profession yoo xamante ni benn bu ci nekk mën mun na maa jariñ mais même pas ça y a des yoo xamante ni man am naa ko te dama bëgg pour que état bi mu jàpp ci quoi parce que xam nga lu tax est que. parce que am na ñoo xamante nii man ni ñu ma dimbalee noonu laa leen war a dimbalee man ni ñu ma dimbalee noonu laa leen war a dimbalee man su ma ba xëy faatu te dimbaliwu dimbaliwu ma ñeneen c'est parce que duma ma gor mais ci kaw aussi yàlla may ma ko quoi ci kaw aussi ñi ma war a jàppale aussi jàppale ma donc man daal li ma am ci di ko wax ci côté boobu noonu mooy comme quoi que ni maa ngi toog di xaar yàkkamtiwu ma dara aussi bëgg naa ku ma jàppale pour que la vie se continue quoi. Euh, Pap euh, maman bi nga xamante sa peine moo ngi doon euh, ñëw ñaata at lañ la mujjé tej. est-ce que da nga assister audience bi biñ ñu annoncer peine bi. Mhm. wala da nga nekkoon ci bir prison bi ñu annoncer la ko ak noko ko c'est en 2008 avant dernière cour d'assises -hmm. avant dernière cour d'assises yi -hmm. Mhm. c'était en 2008. Mhm. mais ñun ñëpp bokk toog mais soo gisee loolu noonu mu nekk mooy comme quoi que mooy que ni. y avait un un ami quoi koo xamante nii ci suñu problème la bokkoon. ci mhm. problème bi la bokkoon ñu ko doon wa jibi. Mhm. ñu ko doon wax jibi. Mhm. Alex. Alex dafa assumer ay responsable am. Mhm. nangu ne moom dafa doon jënd ay oto. Mhm. di ko sénégaliser di ko jaayaat. Mhm. man musumaa jënd oto musuma jaay oto musuma dawal oto. donc mais ji moom. dafa dellu dañu delluwaat ci biir prison bi bi ñuy attee ba nga xamante ne xam ñun suñu jugement bi def na 16 jours mhm. ji bi dafa delluwaat ci prison bi mhm. di waxtaan ak ñeneen ñoo xamante ni nii bokkul woon ak ñi mu bokkal problème parce que man jibi boobu noonu je le connais pas en dehors xaw ma ko ci biti je ne l'ai jamais vu ci biti mosuma ko gis <clears throat> Les gens qui ont été bi mu di waxtaan ak ak def ci comme quoi que ne ko yow bo deme taxaw je ne sais pas dañ ko ne bo nangul wala bo le tojal kasi wala bo deme suxlul ñi pour ñu tëj leen yow ñu la c'est pas xawma lan lañ ko ci wax mais en tout cas ces intentions c'est pas très joli. Mm-hmm. waye nak lakuna yalla na yalla yalla nako yalla suñu borom bi yeureum woyfalul suuf ci kawam loolu lañu wax ci aduna ñu ne nit ki nga xamantene da nga wor ran ba déwén mu jigla la bu fekente ni deug la luñ lay waxal la no bu lu jigee rek xamal ni mbeur nga ko waa sa parce que mom jibi yalla nako yalla suñu borom bi yërëm bëgguma woon sax di waxat ci mom quoi parce que lakuna ba pare te ku laax ko ba pare xam nga waaye ay ayibam xam nga jarut a feeñal daal. Mhm. mais en tout cas daal li mu mën a wax ci moom mooy que ni yal na ko yàlla woyof yal na ko yàlla xare arjana woyofalul suuf ci kawam. Mhm. mais vraiment vraiment man li ma lu lépp foofu la jóge li ma tëjlu perpétuité foofu la jógee mais defuma lu tax ñu war ma tëj perpète et que pourtant jiñ nañ ma fi rey nit jiñ nañ ma fi criminel accusé nañ ma fi lu ne. y avait boo xamante ni nii seen confrère la te muy faral di wax ne ñooñu dama leen dama leen dama leen a toppoon dama leen a xam parce que moom moment boobu noonu moom moo nekkoo moom moo doon ñëw tribunal bi ñuy jugé bu ñu ma jàppee police moom moo fay ñëw et tout ma di ko wax ne ko moom bëgg naa mu ñëw ci kër gi seet si ma ñu toog waxtaan man ak moom mbaa non parce que il se croit que de me connaître. ok te xamuma. Mhm. loin de là. parce que day toog même ci télé bi day wax ne ñooñu dama leen a xam te xamuma dafa may gis nii rek tout simplement comme ni ma Sénégalais yi di gisee rek la may si gisee bëgg ma utal ay jikko bëgg ma utal adresse bëgg ma utal étiquette bëgg am fu may collé. léegi yan kaddu yu mujj ngay daanelee <laughs> Pape. waaw kaddu yi nga xamante ni moom lay daanelee. Mhm. mooy que ni sama mbokku détenu yi nga xamante nii ñoo ngi nekk ci biir kaso yi dama leen a bëgg lancer benn message mooy que ñoom ay ay Baay Faal lañ ay góor yàlla dëgg dëgg lañ ay jàmbaar lañ mais nañ gën a waxeerlu ci suñu boroom nañu delluwaat ci yàlla suñu boroom nañ jël lépp teg ci yàlla man sen exemple la sa su nek ñom nañuy sak pour que yalla may leen guddu fan may leen wër parce que guddu fan ak wër mo mën kaso bu leen ko yalla suñu borom maye rek kaso bi dina jeex may ñaan monsieur le président Macky Sall pour que mu di leen bàyyi xel bàyyi xel bi mooy que ni du dum leen di jox du dara mais grâce à mon moko mom mom mo am prérogative yi moom gracier kou ko au moins au moins vous faites ne daf koy def chaque année 2000, da fay nek lo ce nit ñi dañ ci am sens gis ci sen bop du lañ gracier ñun xam nañ ko ñun xam parce que y a des choses yo ne se fait pas et qu'il y a des actes yoo xamante nii soo ko defee aussi tu vas payer les conséquences. dogguma la est-ce que grâce bi bu ko defee 2000 du risqué wu ñenn ñi parce que yow c'est pas évident yow boo génnee. Mhm. Euh, nga am ay objectifs. Mhm. Euh, am ay projets. est-ce que ñeneen ñi du ñu dellu si waat si li ñu newoon. dafa bëri ñoo xamante ni mérito nañ ko man comme ñibbi bi ma ñibbi dafa bëri ñoo xamante ni dañ ko mérito. dañoo méritu ñibbi boobu ñu ngi foofu noonu parce que tu vois des gens yoo xamante nii dañuy bàyyi jabar ju ndaw ci biti dem di jaay bon parce que dëkk bee dëgër affaire yee metti ba ñu caalit caalit caalit laa koy tuddee caalit moo leen di jàpp ba ñu dem dugal seen bopp ci ay dérive yoo xamante ne waruñu ci dugg pour bëgg am lu ñu amul rien que c'est pour satisfaire famille bi pour satisfaire njabot gi ñu retrouver wu ci en prison nga gis ñoo xamante sen ay jabar dañuy ñëw fekk leen ci biir prison bi ñaan leen baat ñu tok ci biir kasso bi di joy comme ay xalé yu ndaw parce que li leen dal nonu ba tax ñu dugg prison koku di leen ñaan si bat. mom amna ci responsable mais du ko gisee noonu té duko jappé nonou ndax lan da fay top bakanam parce que day dégg ñu né le 10 ans 10 ans bo xolé 10 ans c'est pas quelque chose bo Lui, lu yomb 10 ans c'est pas 2 jours bon yamba yamba ñu tejj le 10 ans sénégal rek la am sénégal quest ce que la am c'est vrai yamba drogue la mais am na drogue yu ko gën a pur cocaïne mi ngi fi brown mi ngi fi métavitamine mi ngi fi opium bi mi ngi fi te am na nag drogue bu ko gën a banal boo xamante ne dañ ko légalisé te boobu li muy def kenn du ko wax. fu ko légaliser. fii Sénégal mooy sàngara sàngara il pur sàngara bii nii moo gën a pur loolu téeméeri junni yoon. téeméeri junni yoon xoola gis nga naa la benn affaire tey jii pour que Sénégal yëpp xam ko. Mhm. gis nga genn wàllu booy yi ngay gis ñu def kirim yëpp. Mhm. ñoom ñëpp sàngara lañ naan. damay faral di dégg journaliste yi di wax naan dañoo màndi dañoo tux drogue dañoo def ni mais tuxuñu drogue tuxuñu cocaïne tuxuñu brown sàngara la ñu naan bu 200 bi xaw ma Jakarta lañ koy wax. Mhm. Jakarta moom la ñuy naan. moom la ñuy naan mu dugal leen ci ay dérive yoo xam ne dañuy def sax crime après ñëw bi ci prison bi soog seen rendre compte mm-hmm. te dara yàqu leen lu dul sàngara bi nga xamante dañ ko légaliser ci dëkk bi ku mu neex nga mandi ku mu neexul nga mandi parce que boo amee liggéey da am loo mandee boo amul liggéey da am loo mandee boo amee xaalis di nga am loo mandee boo amul xaalis di nga am loo mandee mm-hmm. sàngara boobu noonu moo sonal nit ñi mm-hmm. sàngara boobu noonu moo sonal nit ñi quatre-vingt-quinze pour cent yi nekk ci biir prison yëpp sàngara boobu moo leen foo yóbbu amuñu possibilité pour jënd ji gis nga tuxkatu dorog mm-hmm. kuy tux dorog mm-hmm. kooku dina am leneen lu mu tal lu bokkul ak dem di defe ju leneen lu mu warta def xam nga lu tax parce que dorog boo ko dee tux dorog bi moom moo lay contrôler doo ko doo yow doo contrôler sa bopp yow sa vie dootoo ci décider mais moom moo ciy décider mm-hmm. moom mooy décider à votre place yow mais donc koku di décider yow à votre place koku ëpp na la doole. kon donc yow lo dem di def même lo warta def. il faut que ñu wax ñu ñu waxante li fi nekk quoi yow lo dem di def lo xamanteni ni lo ko def. sa parce que. cocaïne bobu noonu ngay tux wala brown bobu non nga xamanteni mom ngay tux. d'abord boko ko da ngay fièvre di malade da ngay fièvre da ngay feebar amee ay jaari biir bi di daw yaram bi di métti ngay wàccu bu fekkente ne bu fekk bu fekkee bu fekkente ne kooku ngay tux soo ko gisul garaawul sickness bi moom c'est vite fait day weesu soo ko gisul garaawul mais il suffit que nga yor xaalis il suffit que nga yor xaalis dañ let moom moo lay obligé moo yëngatu ci sa biir deret da ngay dem tuxu ji ko par la force mais lolu mo gëna pur lolu mo gëna bon yamba fi lañ koy béyee Casamance Casamance fi lañ koy béyee état bi xam na ko état bi xam na loolu alkaati yi xam nañu loolu sénégalais ñëpp xam nañu loolu c'est vrai amna na yu yu joggé étranger di dugg ci wat ci bir réew mi c'est vrai lu am la mais 70 pour cent bi yëpp Casamance bii lay joggé mais Casamance il fait parmi si Sénégal ci Sénégal la bokk. mais kon lan moo war a mën a tax ñu jël ko def criminaliser ko di ci tëj seen ay doom dix ans mais te pourtant tubaab bi la nga xamante ne moom yow ci loi am nga sukkandiku mais moom du tëj doomam dix ans ci yàmba. amul feneen amul feneen France bi nga xamante ne mooy suñu référence xool leen ko est-ce que yàmba dinañ ci tëj dix ans cocaïne sax ñu la tëj dix ans te cocaïne moo gën a pur boo demee ci Asie bi nag Amérique du Sud Asie bi. c'est vrai amna deuk yo xamantene ñom cocaïne dañ la ci ray dañ lay fat dañ lay ray mais à vrai dire criminalisation bobu nonu ñu def ci ci yàmbaa jooju no no sonal na askanu Sénégal sonal na askanu Sénégal comme quoi que ni <coughs> yamba drogue lolu loolu du lu kenn di natable mais drogue bii ñu légaliser nga xamante dañ ko bàyyi ñu di ko jaay si suñu koñ yi ak suñu bitig yi xale yi di ko jënd di ko jëfandikoo moo gën a pur mooy sàngara bi moo gën a pur fuuf te ci loolu nag lañu ñu war a wax ba pare. Pape ñoo ngi lay sant di la gërëm euh, di la remercier euh, dalal bi ñu dalal euh, ñëw deux jours mm-hmm. nga dalal ñu tey mm-hmm. loolu du lu yomb di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu leeral sa yoon Euh, li ngay xaar euh, si ñi la war a jàppale moo xam état bi la moo xam mbokk la moo xam xarit la euh, yàlla yombal ko donc di la jaajëfal bu baax suñu mbokk internet yi tey seen tv point info moo dem sees si Pape Ndiaye Pape Ndiaye mooy ki nga xamante ne dañ ko tëj pendant vingt quatre ans si biir waxtaanam njuumte moo tax ñu tej ko donc di leen jox dig daje boo beneen numéro salaamaaleykum